ñi ngi ko placé woon sous mandat de dépôt le 3 juin 2024 ci ab escroquerie foncière bu toll ci 1,2 milliard de francs CFA moom Doro Gueye ñu koy woowee PDG boobaak léegi mi ngi ci kaso bu rëbës di fàttali rek ne nag société boobee di Siraj Financial Holding la mu tegoon ci kawam mooy daal ci jënd wala jaay ay baux yoo xam ne mu ngi nekk euh, ci site ancien aéroport international Léopold Sédar Senghor naam sax ba ñu ko yóbboo nag ci instruction ci juge bu troisième cabinet ngi doon wax amoon accord verbal bu doxoon ci digganteem ak moom ak boobule société waaye nag ñuy fàttali démb lañu koy extraire ci cellule boobee yóbbu ko euh, ci troisième cabinet ngir rek daal di koy euh, dégluwaat ba ñu ko dégloo itam euh, ba noppi la mu def rek mooy dafa daal di génne ab koppar bu toll ci deux cent cinquante millions de francs CFA teg ko ci taabal ji dugal ko la mu wax nag mooy fii ak fin septembre li nga xam ne moom la ca war a dugalaat loolee dana ko daal di joxe ba mu mat sëkk di fàttali rek nag ba ko teewee la nga xam ne jotoon na ko wax ak enquêteurs yi moom mooy daal terrain yooyee euh, président de la république moo ko ko joxoon la taxoon mu jox ko ko mooy dafa amoon ay mission secrète yoo xam ne daf ko ko woon a defal ak lu ci munti am booba ak léegi mi ngi ci loxo yoon ba ñu ubbee li nga xam ne itam moom mooy bile instruction démb moom mooy bi ñu koy doogaan ak jëlaat di déglu laata nga xam ne inculpé woon nañu ko placer woon ko sous mandat de dépôt jël na koppa googee daal di koy joxe ne nag nañu ko may fii ak septembre dana mottali la ca des